dama bëgg a tabaxal samay mbokk jox leen ci loo xam ne ñii ëngatu ci sama papa ak sama frère di wax non xaaral ba li jeex xaaral ba li jeex loolu nag mooy son boobu kese moo moo fi des wax noonu kese moo fi des so sinon dañ lay bëgg wax non xaaral ba mu jeex instant bi on parce que loolu lañ lay bëgg di wax man soo comprendre leen réaction bi nga nekk de mais li ma fi wax rek moo fi des xam nga nag loolu ñu lay xaara xaara xaara danañ la mais lii ma la wax denc ko ëllëg wallahi la di toog ne ay suma wallahi la mais pour l'instant damay toog xool su gisee benn je sais dem ndax leen après ne la sama gàlle laata man bon maa ngi nekk di jënte loolu je ne sais pas man mais nag garaaw yow yaay ndeyu mbili ah ya xam lu la arrangé ak lu la arrangé wut waaye man de dama bëggoon. le fait tu sais le fait d'être ici ne me plaît pas su ma leen woowoon tey ne leen dama bëgg ngeen defar suñu waa kër bi dañuy wax ne on peut pas faire ça maintenant surtout ñu ngi wax ay waxu complot complot loolu lañ lay wax su ma leen waxoon ne tamit dem leen wax ak suñu sareen suñu kilifa bi fi ne duñ ñëw parce que xam nañ am nga influence bi duñ ñëw. duñ ñëw duñ ñëw. waaye léegi yow yow léegi toogal seetaan ma man danaa dugg ci mbir mi. d'accord.